nit jox na ko lim ci ay saxaabaam mu bokk ca saxaaba yi mu jox ko lim bu muy wax te lim ba yonent bi joxu ko ko woon moo ko tànnaloo boppam di ko wax waaye bu ma ko waxee ba wax ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci kanamam de bi boole na loola ci diini ji boole na loola ci lu di lu war a wér ci diini kon bu njëkkee ba jamono lim yooyu ñu génne ci salaatu ala nabi ñu bëgg koo dàq ngir bëgg ayebal tariqat dama wax ni kon lim booba bu nekkee ayib ci jamono bii ba yonent bi du doon nekkuloon ayib te doonu loolu lu yonent bi joxe te kooka bu fekkoon ni yéen di yonent bi yaa ma ko jox kon danañ ko wax ca wax ja waaw kon nit ki am na droit salaatu ala nabi mu dagg ca lu ko soob di ko jaamoo yàlla te itam bu fekkee lim bi moo nu bëgg a jaaxal waaye waaye lim bi bu nu ko dalee bon ci wérdo yi ak wadigo yi lim bi ci diine ji diine ji lu amul lim amul ci julli waxtu yu juróom am na lim woor weeru koor am na lim natt asaka am na lim aji màkk am na li ci am na lim julli waxtu yu ku ne xam ne ni juróomi waxtu la kenn gisagu ci juróom benn waxtu kenn gisagu ci ñeenti waxtu woor weeru koor am na lim benn bés muy fanweeri bés wala muy ñaar fukki bés ak juróom ñeent asaka am na lim ak mu ne benn yoon lañ koy génne la ngay génne day amab lim ah aji màkk it am na lim benn yoon mooy farata ci sa dund mu des lan alxuraan saari alxuraan am na lim téeméer ak fukk ak ñeent la isi bi am na lim juróom-benn fukki sib la nisim yi am na lim téeméeri nisif ak ñaar fukk la ruba yi am na lim wax dëgg yàlla ñaari téeméer la ak ñeent fukk sumun yi am na lim ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk la aay yi am na lim juróom-benn junne ak juróom-benn téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn la araf yi am na lim ba lépp lu yàlla bind rek am na lim kon alxuraan ci boppam lu ci amut ab lim amul nga wëlbati ko dikk nag ci lim yi fan lañ ko teg ne bu nun lim yàlla nu ci jaaxal moo di xanaa kon lu yàlla tudd la lu misaal ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba mën a nekk juróom waaye nu de nin ko jàngoon aqamu salaata di duloo ki samsi ilaa xasaqi leeli wa tulu il fajiri ina quraan al fajiri kaana mashhudan di duloo ki samsi ilaa mooy lan tusbaar ak tàkkusaan wa tulu il fajiri ilaa xasaqi leeli mooy timis ak fajiri ak jullit fajar muy jullit suba waaye li wér julli waxtu yu juróom am na lim ah ci biir lim boobu bu ñu jullee ba àggal lu ñuy def dinañuy tasab dinañu yonent bi tasab la daan def tasab amutal lim ah pourtant day tasab day li ñuy tasabe ñetti kàddu rek la ñuy tasabe subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar te lu ci nekk demir la ju yàlla wax rek bàyyi ko fa tudd ca benn lim wasabbihoohu bukratan wa asila di leen wax subhanallahi suba ngoon rek ñu ne kon nañ ko def fanweer ak ñett bu ñu bu mu jullee ba noppi di loolu la ah wa qul alhamdulilahi na ngeen wax alhamdulilahi ci suratul isra yi dafa amab lim ñu ni kon nañ def subhanallah fanweer ak ñett alhamdulilahi fanweer ak ñett wallahu akbar wa kabiruhu takbira la wax na ngeen ma màggal na ngeen wax na ngeen wax allahu akbar loolu rek la am na lim ñu def ca fanweer ak ñett fanweer ak ñett it lu tax nabi sallallahu alayhi wa sallam jëngu ca saaba ya mooy ute gi ci nekk te kenn mënu koo dindi ñii dañu ni booy tasab subhaanallaahi fanweer ak ñett walhamdulilah fanweer ak ñett wallahu akbar fanweer ak ñett ñii ni déedéet booy tasab kay subhaanallaahi ñaar fukk ak juróom walhamdulilahi ñaar fukk ak juróom walaa ilaha illallah fukk ak juróom wallahu akbar juróom muy téeméer ñii ni déedéet booy tasab kay subhaanallaahi fukk ak benn walhamdulilahi fukk ak benn wallahu akbar fukk ak benn muy fanweer ak ñett ute yaa ngi fi di gàñ te saaba yoo ko fi tëraloon te yonent bi ba ko fi dama wax ni yonent bi ne na alaykum bi sunnati wa sunnati xulafaa il arbaa dénk naa leen sama sunna ak sunna saxaaba yi saa yi bi daan saaba yi daan jëfe lii ñoom ndax jëf ndax roy leen dadul masala ah nga dellu si génn ci lim yi te bi man la ñàkk afdalul ibaadi inda allahi adwamuha ay aysaruha dañu wax ni jaamu yàlla gi gënal yàlla mooy jaamu yàlla goo xam ne gi dañ koo taqoo ca waxtu wa taqoo ko ca jëf ja taqoo ko ca nit ba boo ko utalul waxtu nan nga koy taqoo ci waxtu boo ko utalul lim nan nga koy taqoo ca lim ba boo ko utalul aw melo nan nga koy taqoo ca jëf ja te yonente bi sallallahu alayhi wa moo wax ni wirdo dikk làmboo sant yi yëpp ñu ni bokkul ci diine ji ngir bëgg ayibal tarixa fu ñu ko teg teguwul fenn nga dellu ci war a def gi nag ñu ne waajib la war nga koo def ñu ne ah war a def gi nag day dem di dem di waral nit loo xam ne li yàlla war waralu ko ko yonent bi waralu ko ko tegu ko fenn ah kay teg nañ ko ci risaala baabu nasri demal ci risaala ba nga jàngi ci baabu nasri demal ci alxuraan bu noppi door dem ci risaala yàlla def ni wala yuufu nusuurahum nañu matal seen nisar yaa nisar ni danga def nangam yaa nisaral sa bopp ni da nga def ngoon gu ne da nga def astaxfirullah fanweeri yoon yàlla ne kon de daal na lay war yaa ni sar ni ngoon gu ne da nga wax allahumma salli ala sayyidina muhammadin juróom fukki yoon yàlla ni kon war na la yaa ni sa bopp ne da nga wax téeméeri yoon laa ilaha illallah yàlla ni war na la wal yuufu nusuurahum boo demee ca baabu nasri ca risaala dañ la wax ne boo fekkee da ngaa ni sar ak ak naafila dem ba nga xam ni yoon may na la nga wàññi sa julli farata ngir tukki booy tukki boo demee ba wàññi julli farata yi amuloo droit wàññi ci naafila yi dara da nga ko naafila ni mu daan toll am na droit ci wàññi ci julli farata yi mooy tusubaar nga def ko ñaari rakka waaye amuloo droit fukki rakka yeeg ñaar yi nga daan naafila nga wàññi ci benn amuloo ci droit lu tax boobu yaa ko lisaral sa bopp te kon daf lay daal di war ñu ne kon ki ki sukk ci kanam sëriñ jaayantee gi moom ci yàlla ne ko fas daa yi lay jëfandikoo tariqa muy naafilaam ñu ne koo ko def ko waru ko fu ñu ko teg wuute nañoo sariya te it nag risaala loolu mu tëral dañ ko ciy bàyyi ndax wax naa la ne ay masalaam nañ ci teey gone du ko dindi sa séddal xaaji malik radiallahu taala anhu daana wax ni mag gone goo fi dajal muy jàng boo ko ne man téere ngay jàng da lay wax rusa wax ne risaala danaa laa maa ngi jàng lawal mbaamu na la maa ngi ci saani mbaamu na la mbaa ngi ci tuufa da lay rusa wax risaala ndax defee ne risaala téere bu ndaw la fekk yee ndaw fekk yee diine ji àttewul lu génn risaala tey risaala du moro du moroomam xalil de du moroomam xalil benn moo ko ëpp sara lool moo ko gën a wér lool ndax risaal xalil am nay ndog tawilaani fi lxalili bamaqun wa hakada qawlanuha qul dalaqun ballun taraddudun jallun xilaafun dañu wax ni xilaafun yi ci taawilaani yi yi ci xalil rek bamaqun la téeméeri taawilaani la ak ñeent fukk ak ñaar nga xam ne da ngay daaneel masala mi ni taawilaani ñii kat dégg nañ ko nii ñi dégg ko nii mu ngi ci biir xalif xawlaa ni wax baagal ñii ne la kii wax na lii kii wax na lii ba ma dalaxul la téeméer la ak fanweer ak ñeent jallun tëradudun wax ba noppi ñu ne tëradudun déngi déngi jallun la fanweeri tëradudun ak ñett nga fa wax ba noppi ñu ne xilaaful uute nañ ci war lii la wala du noonu noonu kooku nekk na ballun tëradudun jallun xilaaful ballun ballun fanweer ak ñaar jël jallun fanweer ak ñett ci xilaaful yooyu masala boo ko génnee ci xale lu ñu jëfandikoo daf fay def lu ñu mën a àtte doomi soxna daf ciy def nga indi risaala taxawal muy silsila bu wér baax a saqa mën a ara jële mooy tënk ba abo seydin xayrawaan yu moo liggéey risaala abo seydin xayrawaan yu ibnu habiba ko jàngal ibnu habib sax noonu ko jàngal sax noonu ibnu qasim ko jàngal ibnu qasim limaamu malik ko jàngal limaamu malik naafioo ko jàngal naafioo ali ali yonent bi yonent bi jibril jibril yàlla moom masala muy dañ daf fee ne ñu wëlbatu ko limaamu malik mi nga xam ni moo jàngal ibnu qasim ñu ñaar juróom ñetti téeméeri ulama wu ñoo ko formé ñetti téeméer ya fekkee nañ dund ak saxaaba ya limaamu naafi yu ci la juróom benn téeméer ya fekkee nañ dund ak ña fekkee dund ak saxaaba ya moo mu formé junniy alim moom it ak ñaari téeméer ci diine ji door fee bàyyi ko junniy alim junniy ulama wu la formé moom limaamu malik ak ñaari téeméer junni ak ñaari téeméer la jàngale ñu samp daal tey fa mu doon jëlee xam-xam xam-xam xaaju ko ndax sallallahu taala alayhi wa sallam ñetti téeméeri junni xam-xam la fi bàyyi ak juróom-ñaar fukki junni xam-xam ak ñetti junni xam-xam ak ñaari téeméer ak fanweer ak juróom-ñett 373 238 mooy xam-xam yi mooy xam-xamu diine 373 238 yooyu xaaji Malick nee na bu fekkee ni naanuloo ko ba mu nekk ci sa bopp ba loo ca gis te bokku ca nga xam ne lii bokku ca lim booba mais boo weddee kenn rek ci alkane nga jëm ak musiba ak toroxte boo de bind na ko nee na alaaji maa ngi nee na man lam yuxit bi jumlati sharia inkaaruhu li muhlikin ah ne bu fekkee ni lim booba takkuloo ko mokkal ko naan ko ba lu ca bokkul boo dajeg moom mën koo xam sa wet di kenn ci masala yi rek wala kenn ci borom masala yi rek ci ci alkandele la jëme <coughs> ñu ni càpp ci kanam mag ñi di weddi lu ñu xamul di weddi luñ doonul dara seen yoon nekku ci ah loolu ko ko mën a dendal wala yoo foo nu sóorahum aaya la baabu nasri dikk fi di bunt ci fiq bi ñu sukkandiku am ni seen ci jaamu yàlla ut suñuy dog dog ko mu di suñuy naafila ñu di ko jaamoo yàlla ñu war koo jëfe ñu bëgg ne du farat waajib du waajib ci noonu te awfoo bil ahdi innal ahda kaana masuulan ka awoodil masaayiqi wa xayriha matal leen seen wëllëre yàlla moo ko wax wëllëre lu ñuy laaj ñu ni ko awoodil masaayiqi ni ko wëllëre mi nga si ak seneen li ngay seq sëriñ bi mooy lan mooy tariqa bi nañu liggéey suñu tariqa ñu ni bokku ci fan la ko teg hmm? داي فن طريقه تي سري على استغفر الله كن نكو ген تي لا اله الا الله كن نكو ген تي دينه اللهم صل على سيدنا محمد كن نكو ген تي دينه كن منو ني صلاه الفاتحه لين جا ني لوتا ني لي ميلو مو لامبو يا يا سيدنا امرو صلوا عليه وسلموا جي امول مو لين جا دا يا يا سيدنا امرو صلوا عليه وسلموا على الله صلاه الفاتحه امول وسلم لوتا مي ام وسلم صلاه الفاتحه ني واخوكو صلاه على النبي لا تي تنبيو ñetti junni salaatu ala nabi fa ne bu nekk ànd naa ko wasallim waaye nag nit a ko def yàlla moo ne yaa ayyuhaa llaziina aamanu sallu alayhi julli leen ci Muhammad ñu jéem a julli ci Muhammad xamuñu ni ñuy jullee ci Muhammad ñu wëlbatiku julli loo yàlla muy sunu julli ay eh, allahuma yow yàlla kon salli julli ala sayidina muhammadin ñu julliloo ko julliloo bu ñu julliloo yàlla moo di sunu julli yàlla wëlbatiku jullil boppam ci Mustafa ci salaatul fatihi te wasallim ban la dox digganteeg yàlla diggante yàlla yonente mooy nangul ko te topp ko te ormal ko yàlla du dootu topp ci kenn du topp ku mu bëñ nun nag war nañoo topp ci ku yàlla bind ndegam topp loolu na ci moo tax ñun ñëpp bu ñuy julli ci Muhammad yàlla ne yàlla seen amro sallu alayhi julli leen ci Muhammad wa sallimoo te ngeen nangul ko ñu nangul ko nabi man yàlla man te nangul Muhammad yàlla ne ceex salaatul fatiha génne ko ci alquran foofu alquran mu leer ko allahumma salli rek boo ko waxee alquran dikk يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه على سيدنا محمد ما كان محمد أبا من رجالكم من الفاتح لما أخلق إن تصرفته فقد جاءكم الفتح والخاتم لما سبق ولكن صلى وخاتم النبيين ناصر الحق بالحق إن تنصروا لا ينصركم وبالحق أنصرنا وبالحق نظرا والهادي إلى صراطك المستقيم وإنك لتهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله ليصب أنكم رجز أهل البيت حق قدره أي ما قدر الله حق قدره ومقداره وكل شيء إنه بمقدار أعظم وإنك لعلى خلق عظيم alquran jeex salatul fatih jeex ñu ne xamul bàyyi ko amuñu ko duñ ko xam duñ ko xam ndax dadul seen cër wax dëgg yàlla alquran ci al salatul fatih ci alquran la bokk ku ko mën la dëppale ni ak alquran nag da nga cey mandu da nga cey mandu rek ta bayyi te dana wax ne nañ moytu gën gëna xam mo ay ci xam bu xam yëm fa la xam dale te xam-xamatu ca dara xam-xamatul nag ci gënaaw xam gëna xam dara xam-xamatul ci gëna xam dara bu ko defee nag ñu jël sunu wërdu nag di ko jëfandikoo di ko jaamoo yàlla Sidi Ahmed Tidiane Cherif naam moo nu andil tariqa bi waaye nag ja andi lu luñ ko jaamoo de luñ yàlla rek la ñu andi la ko dalee ci ansi wilaay ba ci amay si woon a ja lépp yàllay kese la waaye waay waay waay waay nañ ñu bàyyi ñu jaamu yàlla sunu tariqa nan ko ci def te it nag jaamu yàlla goo xam ne ji itam wàññiwul ci sa sariya dara xanaa ko caa yokk yow li nga def yow li li la sari abi waral lu lépp da nga koy def ba mu jeex yaa moom sa jamono nga dagg ci lu la warut di ko def loolu du sunna ah salamtu sunnata man ahya zalama ila an istakat qaddamaahu durra min warami wa sadda min zaabin ahsaahu wa tawaa taxta tijaarati kasaxaan mutarafal la dami lu tax bu sëri yi wax ko sallallahu alayhi wa sallam di taxaw di julli xaaji maa ngi nuyu salla nabiyullahi lil jooyi qaa'idan yu allamu anna daara soo ko tisóolu daana julli taxaw di julli ba xiif jàpp ko mënatu la taxaw di julli mu dijju gàpparu di julli ah bu séeru ni daana julli ba yàgg bu xiif ba mënatu la taxaw mu fab ay dot teg ko ca kaw biir ba fab kaala ga takk ko ca ngir mu dëgër lu mën a julli bu séeru ni daana julli ba yàgg tànk yi niwi amatul doole taxaw julli mu gàpparu di julli loolu lépp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ko def loolu ñeenti raak ñeent juróomi waxtu yee taxoon mu di ko def di moo daggoon ci boppam ab lim ci xeeti jaamu yàlla yi di ko jaamoo yàlla kon farlu googa mu amoon ba teg boppam luñ ko tegut di ko jaamoo yàlla ndax farlu googa roy ko du waajib te ñu war koo roy boo ko royee ca farlu ga di ci jaamu yàlla ngay tibb rek di ci jaamu yàlla nam farloo iqtidaa'ul mujtahidi bil mujtahidi yaqtadihi li tahidi la li taqyidi fi aqwalihi yaqtadihi usulan wa furu'an royet aji farlu ci ku farlu daf koy roy ca farlu ga ah di tagg lu ko warut di ko di tobbil boppam sas lu ko warut di ko bay loolu rek mooy sunna sunna si yonent bi la loolu ci sunna la bokk ah ñu bëgg koo génn ci sunna ngir bëgg ayibal tariqa ah tee ñoo bàyyi tariqa tee ñoo bàyyi tariqa nañu bàyyi tariqa te dem ci ñu jëfewul sariya ñu ngi ni gañ bu ñu bëggee waaraate nañ dem Amérique lànk nañu foofa foofa bu ñu fa demee dinañ gis ku néew ci dëgg ñu wax ko ko te téere yi danañ d'accord ni lañ koy wax dëgg la nañ dem France dañ fa fekk yëfar yu am doole ñu wax ak ñoom ci seen kéefar ji te bàyyi fi jullit ñi gën yàlla ba noppi def li leen war ba noppi la leen warul te muy lu baax ñu soobee ko seen bopp di ko def ñu bëgg leen ayibal wax dëgg yàlla ko dem ci tool te bëgg a bay da ngay dem ci ñax ma waaye di nooy li ca gàncax gay rey rek loolu du fulla du fayda Cheikh Sidil Hadji Malick radiallahu taala anhu dafa wax ni dañ ko ne si waxal ci ñi ñëw ci waxal ci gone yi dañuy yàq wasifa wi ndax bu ñuy wasifa dañuy woy rek kenn du dégg lu ñuy wax Hadji Malick ni man Maodo day bala maa wax ñuy yàq wasifa wi wax ci ñi ñëwul ci jàkk ji ba noppi ñi du ñëw ci jàkka ji daal dinaa wax ci ñoom ba noppi doon wax ci ñuy yàq si ba ah bala ngaa waxtaan ci bala ngaa wax kay bala ngaa dal ci kaw jullit bu sàggan dalal ci yéefar bi nangu la tuub ma pare ah waaye waaye wat ci fi yéefar yi dal ci jullit ñi di soow ñoom ah loolu fan lañ ko teg nañu bàyyi nit ñi ñu jaamu yàlla maa xalla ah? li ci des nag lenn rek la ka ñaan ak bëgg ku la gëm te nag du sotti nag ngëm wërsëg la yàlla yónni na fi ay yonent yu bari xam yi warante nañ ba xëy dee kenn topp leen ñooñu ñu topp leen dalul seen wërsëg waaye bu fekkoon ne ku nekk ci dëgg rek ñu topp ko kon ñooñu am mbooloo waaye nag nekk ci dëgg ak am mbooloo kooku yeneen beneen affaire la nit dana nekk ci dëgg te kenn du ko gëm